da ngeen ñu ñaax ñun ñi xamantene ne ñoo nekk si nguur gi ba pare nekk ay lebu comme que da ngeen ñu ñaax nak amna droit ñaan leen liñ leen di ñaan moy amna luy ñew si kanam yagatul yeen ñi joxe baat njabal gi diko ko ne leen suñuy dom ñi ngi si suñuy dom soxla nañ bu seeni dom soxlee bu leen leen xañ jox ñeneen sama meeting bi ñona lan la leen wax du ngeen woteel nit parce que ñoo bokk ethnie du ngeen woteel nit parce que ñoo bokk tarixa wala diine du ngeen wokk nit woteel nit parce que ñoo bokk région da ngeen di woteel nit parce que gis ngeen ci moom ci xam-xam ci njub ak ci bëgg réew lu war a tax ngeen yaakaar ni kii dina defar réew mi ku yaakaar ni boo woteelee nit parce que yéen bokk deret bis bu toogee indi alalu réew mi sa dëkk da ngay nax sa bopp est-ce que Abdou Diouf dafa yóbbu alalu Sénégal Louga est-ce que Ablaye dafa yóbbu alal Sénégal Kébémer est-ce que Senghor dafa yóbbuwoon alal Sénégal Jiwalo? est-ce que tey jii Macky Sall dafa Sénégal Fatick wala Matam so seetee sax moy zone yi gëna a sonn ci Sénégal. il est temps que liñu mom moom si yenn aspect itam pas seulement sur des questions du foncier seulement liñu mom au plan institutionnel aussi bu ma mom aussi déggin la ñu taxaw jox ko suñu dom man Sénégal yépp la yémalé je suis moi-même. Ben croisé, ben croisement entre tous les Sénégalais